Euh, ñetti kaamil yi ñu daan jàng jàng nañu ko yéeneel ko Baay Aadama ak Mat Demba njabootam ak Sidi Maxtaar ak i way juram yépp wa tabaarakallaahu yal yàlla nangu lépp ba mu ko nangoo yal na ko defuk leer defal nu ko àddiya doot ci ko ci ruu ñi tax ñu daje fii ba jàngal leen ko yal na yàlla yokk seen leer yéege leen ci àjjana ya gën a kawe ñu jàngee xatmu bi bàggal aaroona dana sànni ay kàddu su àggalee ñu jàng kaamil bi ñu daan jàngal penda ak njabootam a ngi fi euh, santaane nañu ko kenn ku nekk na jàng fatiha ñetti qul huwallahu ahad julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéene ci kaamil aùzu billahi mina shaytaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر غاسق إذا وقب ومن سر النواسات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد آمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم آمين. ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارنا بالقران الكريم وانفعنا بالايات والذكر الحكيم واجعل لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما سرت به من الله وسكنا بما ضربت فيه من المسؤولات وكبر بتلاوة عنا سيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عن ما كان في تلاوة من السر والنسيان أو تعريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعبير على خير ما أنصرت وتجل عند تلاوته أو كسل أو شيخ لسان أو وقوف بخير وقف أو إدخام بخير مدخل أو إشار بخير بيان آمين. فاكتب من على التمام والكمال والناس من كل الأرض وارزقنا فلا من قرأه مع الدين قوم على والقلب واللسان وهب لنا به الخير والشهادة والبثارة والأمان ولا تتم لنا بسر الآلة والطيان ونبينا قبل المنايا منا من القولة والكسلان وآمنا من أصحاب القبر ومن سالم من ومن ونكر ومن عبد وبين وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وساقل ميزاننا بالأصنات وثابت أقدامنا على الصلاة واسكنا وترجنا وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن أسيب ربيع قلوبنا وجل أصاننا وساب خمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل رئيسنا في الوسط ومصاحبنا في الوحدة ومسبحنا في ظلمة ودليلنا في غيرها ومن قسنا في الفزع واصلنا بمن الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم آت بالسعادة أجالنا وأقم بالسيادة أمالنا واخرج بلا في رقدونا وأسرنا وجل إلى رحمتك مسيرنا ومالنا واضرب على بك على بنا ومن علينا بسدر يومنا اللهم يلتفاك كسادنا وثقة بك صغرنا واعتقادنا وامن من الجوع والخلق بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ الصواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائي وأمهاتي وأزواجي وسرياتي وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات اللهم بلغ الصواب ما قرأناه ونور ما تلوناه أدية واصلة متصلة إلى أرواح شيخ مدين بجوب وإلى أرواح شيخ آدم بجوب وإلى أرواح شيخ سيدي مختار وإلى أرواح صنع فرسواري وإلى أرواح دولو بوسا وإلى آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وسرياتهم وإخوانهم وأخواتهم وجيرانهم اللهم بلغ الصواب ما خلقناه والنور ما تلوناه وادية واصلة متصلة إلى أرواح الشيخ مدين بجوب وإلى أرواح الشيخ آدم بجوب وإلى أرواح الشيخ سيدي مختار وإلى أرواح صنف الصالح وإلى أرواح الدود مصر وإلى أرواح فتوت الجوب وإلى أرواح آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وسريتهم وإخوانهم وجيرانهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومسائخنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم يا من أثر الجميل وستر الخبيئ ولم يؤاخذ بجريرة ولم يعتسر ويا أسم الأرض ويا أسم التجاوز ويا أسم المغفرة ويا باست يا برحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل سكوى ويا كرم الصبي ويا أسم المعنى ويا مخير الغضرات ويا مبتلعا بنعم قبل إزقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا خيط رغبتي أسألك أن لا تسوي خلقتي ببلائدنا ولا بأسابنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الوقت بالوقت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 ñu ngi nuyu mbokk jullit ak mbokk taal bi yëpp di ñaan sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñaan sëñ Cheikh Jëmb mu yàgg fi loolu te ak wér di ko ñaan mboolem taalibe yëpp suñu borom bi yàggal leen fi te wéral leen di am ay kàddu yu ñuy jotal ci diggante bi nga xam si moom la maam ma Demba Diop amoon ak Serigne Touba ba mu jox ko gaal gi ak téeméer bi nga xam ne moo nekk fii ci biir muy diggante boo xam si sunu maam ma Demba Diop dafa toogoon benn bis ba ay fajar rek Serigne Touba feeñu ko mu gis ne ak leer goo xam ne si dafa jóge ci kaw mu koy wax ne ax ah, na an bal mi ngi ñëw ci réew mi mu koy wax ba dégg ko bi mu xëyee mu balelu kër gi ba mu set daal koy wax soxna yi nan nañ ko toggal laax defaral ko soow ndax dana am gan bi ni toll ci ay yoor yoor la fi Serigne Touba ñëw bi muy ñëw mi nga ànd ak Serigne Massamba Mbacké Serigne Massamba la àndal Serigne Touba yor ngelamu la keroog bi nga xamante ni Serigne Touba ñëw na fekk maam ma Demba toog mu nuyu ko maama Demba daal di yuuxu daal ndox boobu xamul suñ tubaa suñ tubaa ne ko mbàkke la ñoom ñaar ñu nuyoo bi ñu nuyoo ba mu ba dem ba dalal ko mu toog kere bi mu fi toogee maama ba daal di toog ñu waxtaan ñoom ñaar mu xamal ko ne ko damaa bëgg dem ndar ci askamara fekk na maama Demba Diop da doon denc jigéen askamara waaye boobu nga xam ne sëñ Touba daa bëgg dem ci askamaraat da ngay dégg ñeen ne la la sëñ Touba dafa ñëwoon ci dem ba pour dem ci askamara pour jël fa weddu xaadir waye du won loolu ndax Serigne Touba wedd xaadar mi ngi ko donné ci bayam Mamour Anta seli ci la donné wedd xaadar woowu yoron ko ba nga xamé ne si taxone mu dem ci askamara askamara dafa tarbiyu ben serif bimu don tarbiyu muy khalifa mom la tarbiyu di ko tarbiyu di ko tarbiyu di ko tarbiyu bimu koy tarbiyu nak euh, ba serigne bobu am secret bu mu ko jox ne ko secret bi ku mel nangam ak nangam ko mel tektal ko ni serigne touba mel ne ko ki moom am secret waye sa beut bi bimu ci tege ne ko waye nang ko denc ba sa su ñewé bis bu ñewé ci yow nang ko ko jox bëgg dem ndar nag mu ne ko léegi nag waaye wagon spécial laa bëgg mu ne ko wagon spécial bi mu ne ko moom laa bëgg pour dem ndar keroog la ko wutal dem gaaru ngumba bi pour waxtaan ak chef de gare bi ne ko damaa bëgg wagon spécial mun ne ko ma dem ba loo koy doyee mu ne ko daa am kilifa gu ñëw ci man te daa bëgg a dem ndar te wagon spécial la bëgg nee na jamono yooyu ñu ngi luyoo wagon spécial ñetti dërëm lañ ko daan luyoo ak ay ngurdu neen mu wane ko kan la mu xamal ko ko bi mu ko xamalee sëñ bu mag bi dëkk njaareem la mu ne ko man de ñaar dërëm yi dinaa ko joxe léegi joxal dërëm bi ak fifin nee na keroog la ko daal nangu lool na ko waaye kilifa gi buggul kenn xam ni dafay nekk pour dem loolu nee mu woote kebe meer dafa wut wagon spécial ñu ne ko amul nee na ñu woote kel wagon spécial amul nee na wagon kees lan ko amee nee na keroog leen jëlee wagon spécial bi kees indi ko fii pour mu war koo yóbbu nee na keroog bi nga xam ne na laaj na ne ko kees mu ne ko foofu da nee na keroog bi ñu àndee ñaar ñu and dem ndar nee fi lañ juggé rañaan bu juggé wuti ndar nee na keroog bi ñu demee ndar bi ñuy toll na dëkk bu wax ngéewul gi bi ñu toll nee sëriñ xamal na Demba ne ko diggante tubaab ak euh, la jor bi ak touba de ciow li bari won waye dogal suñu borom la won rek suñu borom la soban mo bëggoon ñu seen ciow ci digënté raay bi ak ak tubaab bi ban aggé keroog bi ñu àgg ndar nee na sëriñ tubaa lu ñu yobalé na bi dem ndar nee ñu dem ci askamara mu gisé askamara nee na keroog gaal yi nga xam ne moom la yóbbu ci ay teraanga jox na askamara lu tool ci ay mayluus ak war gaag sukkër ak lu ne yóbbul na ko askamara jox ko ko askamara woon a mag ndar yépp séddal jox leen ci te ba mu leen ko jox dañ leen ne sama baay dana ma woon bis boo rëbbee boo jàppee kéwal boo jàppee Luk man ngaa lekk soo jàppee cokkeer man nga lek yow bis boo jàppee kéwal seddo ko ak say mbokk ndax kéwal moom gone du ko du ko du ko lak néna lo tax mu seddel ko néna lo ko seigne touba joxone yobbu na ci ba ganar joxé na ci ci sërëci bi ko seigne touba indi lon ñoom ñaar ñu daal di dugg déeyoo ban nu nak nag su xol ko daal di xamni mom lañ ko doon wax mu jël la nga xamni mom la ko seigne bi joxone nako ki dé sama bi mo ne woon la gisé ma jox lako ko mu daal ko koy jox kérok bi nga xamé ni jox nako ko ba nga xamné seigne touba jël nako kérok bi nga xamné mi ngi ñu wañé ko waat di si jug dem dem njaareem daa ànd maam ma Demba dafa continuer moom ba njaareem maama Demba wàccaatul ngumba kere bi mu ko yóbboo ba njaareem sala koy soog a yeewee ne ko mu del si ngumba mu del si ngumba mu ne ko ma Demba mu ne ko na xam ne cere de du fàtte laalo nee na mu ñëw toog fii Serigne Touba daal di jël gaal gi jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall nee na jox ko caabi jéeg yëpp nee na daan def ba amee sukkar jox ko Cheikh Ibrahima daal cee def. nee na boo ko ca defee jëlaat caabi ja wékk ko ci baatam yor ko nee na yenn saa mu jox ko ay tisi mu def yenn saa mu jox ko warga noonu la koy def ba gaal gi fees keroog bi gaal gi feesee nag ci la ci soog a maam Cheikh Ibrahima Fall jox ko gaal gi ak téere bi ma ko ma Demba ko man ak moom ñoo ko fasante kóllëre maama Demba daal di euh, keroog bi mu wàccee mag ñi dañ ne ko bàyyil ñu jàppale la gaal gi ndax gaal gi dafa rëyoon te gaal gi li nga xam ne dafa rëyoon sëñ Baara daan na ñëw fii bu ñëwee kër Baay Cheikh Mat Jaw bu daan ñëw ci Maama Demba bu ñëwee fii dana tëdd ci kaw gaal gi ndax gaal gi boo ko xoolee daan na léegi la wàññi ko ne na koñ bee ba fii bi Cheikh Ibra wàccee mag ñi ne ko jàpp ne kenn du ko jàppale ndax suñ tubaab ko nee na takk kaalaal la nekk takk ca catlee takk ca catlee di tudd yàlla bu xëccee catlee mu fekk catlee mu fekk si ba mu ñëw kër maama euh, ma Demba ba maama Demba mi ngi dëkk fii ci kër du siise gi kër baay du siise gii la dëkk fii baay du siise dëkk nii fii la maama Demba dëkkoon fi la ko suñ tubaab fekk ak ngel mu la te keroog ngëlëmal bi nga xam ne Sëñ Tuubaa ngi dem daa joxaat Sëñ Masamba ma wàññi ko ak ngëlëmu la na fi la ko maam Seera Faal fekk daal ko koy jox jox ko gaal gi ne ko Sëñ Tuubaa de moo la ko jox génn téere bi jox ko ne ko moo la ko jox kaamil bii nee na fasante na ko yow ak kóllëre nee na keroog ku naan soxna Penda Sarr moom jigéenu maam ma Demba la woon waaye moom nee na gis na Seera Faal teg na ko bët waaye nee na bindam kenn amu ko nee na bindu gaynde la yor ndax yi ko yeel ba dafa sew waaye dënn ba góor amu fanaanu fi waaye guddee na fi nee na bi ñu ko woowee reer sax nee na moom baax na waaye nee na de gis nañ ko muy làmb ci poos bi lu mel ni gerte di koy génne yenn saa yi mu yëy ko di jaabante noonu di ming nee na après ci guddi ga la daal di rañaan wuti njaareem maama Demba daal di yor gaal googu yor ko fii mooy gaal gii ne fii ak téere bii waaye jural na ma wax leen ne sëñ Tuubaa ko fonk maama Demba la ndax ñaar wane na ko. ndax nee li mu gën a fonk ci àdduna la ko jox mooy alxuraan ndax suñu tubaab fi mu tegoon alxuraan kenn teg ko fi ne ko ñaareel bi nga xam ne si ma la ki mu gënoon a fonk nga xam ne si mooy Cheikh Ibrahima Fall moom la yónnoon gaal gi te Cheikh Fall mooy indi gaal gi fii ma ne ko ñaar yooyu wane na ne kon sëñ Maama Demba am na fu ko Serigne Touba tegoon te ma Demba nee naa bu fekkoon Serigne Touba bi ñëw lay topp tarixaat fi ñëw ndax moom Maama Demba moom werdu xaadir la yoroon Serigne Touba ñëwoon na fii ci moom te werdu xaadir la te li ma lay waxaat nii ci ci dem boobu bi nga xam ne moom la fi maam ma demoon tax na Serigne Touba mas naa yebal Cheikh Fall Ndar googu ci aas kamara kon boo demee na nga fa am weer ak fukki fan lu la sant na nga ko def lu loo màjjaal jox ko loo liggéey na nga ko jox Cheikh Fall nekk la woon ci aas kamara loolu am na leneen lu topp mu histoire boo xam ne bu gudd la bu topp ci loolu waaye damay wax ni loolu leeral loolu moom taxunoo jóg waaye bu fekk looloo tax mu jóg dama koy leeral loolu lépp dama koy leeral nga xam ne si ak Serigne Touba muy kóllëre goo xam ne gu yàgg la waaye it leen sëñ ma demba moom nga xam ne si moom la sëñ Touba fekkoon am na lu mu ko faye fay na ko ay sëtam jébbalu nu doon ay taalibi ay sëtam ñii ñu ngi liggéeyal sëriñ bi ay sëtam ñu ci bari ay murit lan du ko demee ne man mii ci laa bokk ak keneen ak keneen ñoo xam ne ñëpp wëlbatiku nañu liggéeyal sëriñ bi te nga xam si loolu mu ko jural nee naa leen foo dem am na lu fa ma dembaam te Serigne moo ko ko defal ko lol mo waxoon du ko du ko mi ngi continuer ñuy feddali kuréel googu gogu so gisé bërb bi ñepp ko jublu di ko di fi ñëw di ziar gal gi sëñ Tuubaa jox ma Demba la ak téré alcorane bi nga xam mom la ko jox moy li nga si mo waral jatai yi nga xam ne def kon ñun dañuy wax ni sëriñ Tuubaa ñun amuñu fayam ñu bari na leen wax ni na leen am na ñoo xam ne kat dañ naan sëñ Tuubaa boko lebelé ker mu fay la guddi way sëñ Tuubaa melul kenn bor lo def rek yow yaay fay yow ba batay ndax sëriñ mo nu defal luñu kenn deful danoo defal loo xam si buñ ko mën waajur yi mënuñu ko ci man kenn mënu ko ci man ndax suñu jëmm yi mu jël defar ko kenn ku nekk ñu waroon a doon ñoo xam si man naa am sax duñu gëm yàlla duñu gëm yonent bi duñu gëm dara mën naa am tey tubaab bi mënoon noon noot ba nu war a nekk ci leneen Serigne Touba dimbali na ba nu mucc ci yooyu yëpp Serigne Touba nga xam si doon diir bii nga xam si moom la def ci géej géej gi mu def gànnaar rek gi mu def céyéen ak gi mu def njaareem yooyu yëpp ci jafe-jafe yeeg coono yooyu mu boole woon di tagg yonent bi boole kook musta wane lenn lu ndaw loo xam te ni dana ko ci xeeb wala lu manqué ci diineem jëmmam jooju nee leen taxul sunu jëmm yi dong moo taxoon sunu jëmm yi nga xam si leen sunu borom sant si jaamu yàlla mën nu ko li nu war a def mën nu ko waaye Serigne Touba jaayanteeg sunu borom di ko liggéeyal ndax bëgg sunu jëmm yi texe texe googu Serigne bim ko ko bim koy jaayante diko jënd ñepp a ngi fi woon waaye keen amul won jëg gi mom rong mo jaayante won jënd ko jënd ko mu ko jënd nak mo jural xewal yi wala ngaan ci réew mi li lepp mu waral ko moko jural alxuraan mi nga xam ci mom la fonkon ba jox ko cër defal nako ci lo xam ci suñu borom fay nako ci lu mu fayul keen lim ko ci fay fayu ko keen ndax bo demee ba nal kër alxuraan amna na Touba rek nga koy gis Touba do ngay dem ñu la kër gi daara kamil la ñu la Serigne Touba njabotam ñoko def fi ku naan sa blaat moko tabax ñu jox ko kër téré dama ne li nga xam ne si moom la murit yi wàcce ci alxuraan boo wër réew mi yëpp àdduna kenn wàcce wu ko ci ay junni junni kaami la wàcce di ko wàccee di ko def addi yonent bi di ko wàcceel di ko defal Serigne Touba dama leen di wax ne yonent bi nga xam ne moom la alxuraan wàcce woon ci moom sax li ñu jàngal li ñu jàngal Serigne Touba ci ay kaamil sax kenn jàngal ko moom la alxuraan wàcce ci moom ndax boo demee Touba Daarul Musti foo dem ñaata kaami la ñuy wàcce ak yeneen dëkk yi dëkk leen wàcce Serigne Touba ko moom dañ ko koy wàcceel kon loolu nga xam ne fay na ko la nga xam ne moom la dajoon ci nga xam ndax yonent bi foo tudde turu yonent bi dañ naan bu ñu waxee yonent bi dañuy wax kat kun ciy teg Serigne Touba lañ ciy teg Serigne Touba doo nga dégg turam woowu ñu dàkkal ci yonent bi te loolee la ko ko jural mooy bëgg gi mu bëggoon yonent ak fa mu ko tegoon moo ko jural loolu kon dañuy xam ne Serigne Touba kat kenn ku ñun amunu dara loo xam si dañ ko ko lebal moom kay moonu lebal ñu koy fay te duñ ko mën a matal ba mukk kon murit yëpp jàpp loola te ñun ñëpp ñu gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla gi nga xam ne moom la sëriñ bi digle ñu gën a góorgóorlu ci fonk suñuy waajur ñu gën a góorgóorlu ci fonk sëriñ bi teg sëriñ bi fu ko kenn tegul ndax sëriñ bi de teg suñu borom teg na ko foo xam te fa mu teg yonent bi fu ko fu mu tegul kenn kon ñun it war na noo delloowaat sëriñ bi teg ko fu mu tegul kenn mel ci moom it noonu melu ci lan tan xam ne ñun sëriñ bi na ko gënal amuñu dara sëriñ bi rek la na am sunu guddeeg sunu bëccëg lépp sëriñ bi amuñu dara ci àdduna loo xam dañ koy tuddul sëriñ bi mboolem li nit ñi wut ak li ñuy sàkkoo ak ñun ngërëmal sëriñ bi rek leen naan ndax xam ne ne sëriñ Tuubaa daal moom amul morom te lépp li ñuy wut ci àdduna lu ñuy wut sëriñ Tuubaa dañ koy wuti léegi bi ma toogee fee laa naa leen di leen am yombul ku am ku am ku kenn amul da ngaa war a mel nu kenn melu te danoo am ku kenn amul muy Serigne Touba kon war a noo mel noo xam ne kenn melu xam naa ne kàddu yi dañ koy wàccee foofu bañ koo guddal di ñaanal mu Muntaxa suñu borom bi yàggal ko fi mu wéral ko yan bii nga xam ne moom la yanu suñu borom bi woyefal ko toll te mu yàgg fi lool lool ba nga xam ne li mu bëgg a liggéeyal maam lépp dana ko man di ñaanal suñu kilifa googu di Serigne Cheikh Jëmb Fall suñu borom bi yàggal ko bu baax a baax mu yàgg fi ba nga xam ne la bëgg a liggéeyal maam cheikh rafal man ko ndax fi yagge suñu njariñ rek lay doon ndax te doon na koo xam ne de li nga xam mom lay liggéeyal cheikh rafal ñëpp tek nañ seen bëtt ta mu mate ko lool doon cheikh rafal ba pare mat ko ndax mom cheikh rafal mom ku wut seesam bopp bi ku ci tok rek mom ngay doon ta dang ko mate ta mate nako sëkk ta ñi ngi ko ñaan mom mu yàgg fi lu wér aouzu billah bismillah inna waliyallah wa anjir alil xalqi wal razaya wal jinni was saytaani wal balaya عمدت من يحشمني من الضرر من كل شيطان وجن وبصر واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النوير وقلبي أرشدا السلام عليكم ودار استفاء صدور ñu ngi leen balak, nuyu balak. Dinyana siyaara di leen balaq di leen balaq di ñaanal Cheikh Mountakha Bachir borom bi dëbb ko kàttan wéral ko waaye dawli yàlla na yàlla di rafet lu baax eh, bi di sant bu mbokk yi nga xam ne moom fekk si fii ci ngumba ngeewul rawatina ki di selir bu mu melne ñi fi tew ño teewal mbollem membre Chifa Dóor yi nek ci ay gox yi fasante ko Dakar Thiès kaolak jurbel toba Mbour hatta bitim rew ñepp tew nañ fi ci and euh, ak président fédéral bi di Serigne Mor Ndiaye Serigne Modou tiar Serigne Mor Taysir ñu mu yóbbaale mu mel ne bu ñu gisee rek ñu xamné lu war la ndax mbokk taaliba mo xam ñoo bokk mom liggéey bokk ak mom yëg-yëg ñuy ñaanal fii maamam mu nekk maam jox am na wàccuwaay joo xam ne Serigne Touba jaaroon na fi ba tax na bàyyi na fi ay jeexintal ba ngeen dégg mbokk yi di fi jàng ay xasida ak yooyu at mu jot ñu fi ñëw di fi teew di ànd ak moom li mooy liggéey mel na ànd bi kon loolu la ñu ko Serigne bi boole woon ndax Serigne bi ba wax ne boole ma leen ngir bëgg ngeen dem àjjana képp dama bëgg ngeen di jëriñu di jëriñante te it daayira moom bu ñu ko waxee day nekk kuréel boo xam ne faaw ñu delluwaat ci alquranul karim moy na ngeen ànd jàpp ci bu yàlla gi ci baña a ta moy mooy naan tahsibu um ba wa xuloo shata nga xamne da fay nek kurel bo xamne bo boo leen gisee da gis maa man mën ñu rol ci gi way da nga gis na seen xol da fay feewolo te yeren tabi alayhi salatu wa sallam xam ne allahu laa yansur ila sawarikum walakin yansur ila qulubikum moy gënante gi mom mu ta nek ci kër yi mu ta nek ci am yi way ci xol yi la nek te al yawma la yanfau maalun wala banuun illa ma ataa bi qalbin salim kon dañu gis na lool lépp rek da dafay delluwaat ci xol bu mutti bu sel alquran del waxaa ne yaa ayyuha nnaas inaa xalaqnaakum min shakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila ta'aarafu inna akramakum inda llaahi atqaakum maa leen ak jigéen ma def ay raas ay giir ñii xees ñii weex ñii ñuul ñii am ñii xeereer ñii ñàkk waaye nag ngir ngeen xam seen borom subhaanahu wa taala kon faw bu leen dee benn ñu di ko bokk di jàpp di ànd xàcc di dóorandoo kenn ku nekk mel na ab saabu ci moromam sa yittay moroom ak sa soxlay morom fépp fu mu la jàpp fekkon lo jàppoon nga bayiko and ak mom bu soxla fa yo soxna ma wala di kenn ci ñun ko xamne ku fonku liggey bi la di jambar yo xamne eh, liggey bi kenn mënu ko ci ba ci bureau fédéral li nga ci amale Dakar ci bari kërëm lañ ko amale kon su amé bis ñu ñew tew fi xolam dana sedd nak tewu ñu fi noonu kep rek jang xas da durus ñaanal mboolem way daw li lool dafa war ci bépp julit bo xamne da fay dox ci kaw suuf kon dal xamna kaddi mu gudd mu gatt dal lool mom bokkoon na ci di andi man tabal huda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 suñ borom doli ko fe yagal ci wëral ko ba lepp lu mu yene liggéeyal señ tuba mu mottali ko lolu euh comme ni ko jëwriñ waxé won rek ni mu ubbee woon yi señ mo Ndiaye jotaay bi di mbolam wa ahlu shifa sudóor di kurel go xamni ni dañu sering di liggéeyal señ tuba ginaaw bañu señ bi euh ñuy fas yéenee jug te yàlla rek tax li takku liggéey yi sëñ Tuubaa ci xasida yi ba kenn ci biir liggéey bi di soxna suy soxna ma astuwaalo di jàmbaar lool ci soxna yi nga xam ni ñoo féete dakaar mu nekk seen jëwriñ ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ndokkeel ci bisam bi nga xam ni ci bisam bi nga xam ni eh, yàlla daa dogal tey ñëpp teew fi ca jëmmam rekk tax ñu bokk Serigne Touba bokk liggéeyu Chifa Sudori di ko ñaanal yàlla suñ boroom ñu koy yàgg koo teewee at yu bëree bëree bëree bëri di ko ci ndokkeel mbooloo mi nag sëñ Touba moom moo ñu boole ndax saa su nekk buñ koy wax rek dañ koy dañ ci am fierté di ko leeral ndax boo xoolee fa mu sosoo lépp ci xasida yi la ay mbokki taalibe yoo xam ne dañoo jóg bokk nekk ci réseaux sociaux yi comme li xew léegi nga xam ni ku ci nekk ak lañ ciy def mais ñoom lañ ciy def di gëstu njàngaleem Serigne Touba ci xës yi waxtaani Serigne Touba ak yu mel noonu loolu nag ci la jaare ba sosu bañ taxawal ko mu am ñu nekk fii am ñu nekk Dakar am ñu nekk ci yeneen gox yi ba ku képp koo xam ne rek nitu kuy ku bëgg lu baax kuy def lu baax buñ la gisee dañuy am sa warte pour boole la ci. motax nit ñew fi tay ken kenn ci bir mbolo mom muy soxna Mama sawala mom la yalla dogal mu invité ñu ñëw ci bis bi and ko mom di ñaan lepp luñ fi jang ci qasida jang ko fi ci alquran yalla suñu borom ful ko e, jotale yol bi ci mamam ju bax joju ak mbollem ña nga xam ni ñoo nekk waa ahlu di ñaanal soxna si te diko ko sant nag ko wax ni ko bokk na ci ñi nga xam ni saa yuñ gis saa yuñ déggee seen kàddu wala saa yuñ leen gisee wala saa yuñ leen déggee dañuy am mbégte ndax bu ko neexoon moom moom mook euh, soxna Astou Ndiaye ni ñu koy faral di waxee ak Baye Aline bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo ci gën a doon ay mukallaf waaye seen saa su nekk duñ nangoo bàyyee kenn lenn waaye nag lépp Serigne Touba mi nga xam ni moo tax ñuy doxi doxin woowu yàlla na leen fayal boppam ca gën leen a sàmm. te gën yagal a ci liggéey bi li ñi amone liñ fi am liñ fi bëggay wax ci lepp ci doxalinu ñom seen doxalin ak seenu melo ci liggéeyu Chifa Soudour yi xaju fi waaw xaju fi buñ togon fi di wax ba gee ci mënu ñu wax lepp jëwriñ ñi nak ñi ngi ni ku ci nekk fa nga joggé bokkut tak fa sa morom joggé am joggé Dakar am joggé Touba am ñu joggé ci yenen gox yi yi nga xamni ni wuñ ay membres Chifa Soudour lool yëpp nak ñoom it Sëñ Tuubaa rek leen ko jaral ah, fuñ fuñu fuñu dégg lo xamné la ci Serigne Touba dara duñ ci baña def seen alal duñ ci baña def seen yité pet seen temps kon nak ñi ngi gëna sante bu baax wa sifa Chidori yi te di leen gëna encourager di leen wax ni liggéey bi mom ñi ngi ci sa su nekk amut nawet amut nor amut dara ni mi wara doxé ci gox yépp ñi ngi koy jëwri ñaangi ngi jëwri ñaangi sonné té lool rek motax lool rek moy tax liggéey bi man ci am résultat ñi ngi sante bu baax mam Asso di koy gën ñaanal bis bi eh, tawfiq di yàlla suñu borom gën ci doli tawfiq ya ko koo ay at yu béré béré béré béré béré wa Daara ci Fass doré ma ngi leen di nuyu di leen ziar di leen sant nak sant ko am doota amul ab ta xamni kat wax deug yalla contane na lol ta di leen yeureum di leen balu ak ci déplacement bi wante yaakaar naa ne balu ak bi sax du soré ndax fi mom lu fi way indi ta fas ko muy deug rek. yàlla mën na cee faj sa aajo ndax sëñ Touba moo fi bàyyi loo xam ne bàyyiwu ko du ma ni bàyyi na ko fépp de mais bàyyi na fi loo xam ne fi mu ko bàyyi barewul waaw léegi nag ma yéene woon leen jàmm ji yéene woon leen lu baax li fi nekk barke beek yépp ñu bokk ko moo tax ma yëgal leen ko maa ngi leen di sant nag bu baax a baax di leen gërëm gërëm gu am door te amul ab di ñaan yàlla rek lépp loo leen fi ñaan rek yàlla na ko yàlla nangu ci barke Serigne Touba xasida yi wax ji nag du mën a sore parce que damaa kontaan ba mënumaa wax te li ma fi waroon a wax yëpp sama mag yu góor yi wax nañ ko daal naa ko li ma waroon wax yëpp sama mag yu góor yi wax nañ ko ma di leen sant bu baax a baax rek di ñaan yàlla at mu jot rek yàlla nañ ko defee nu gën a taw féexee nii ci barke Cheikhul Khadim ñëpp wér ñëpp aajo yëpp faju sutura si yokk njaboot gi yëpp loolu laa leen di ñaanal képp ku fi indi soxla yàlla na ko yàlla saafara képp ku fi indi métit yàlla na ko yàlla saafara yàlla def leen ay magu barke yàlla defal leen ay xéewal yu kawe seen njort daal loolu laa leen di ñaan ñun ñëpp ñu doon ay murit saddiix naa ko ñun ñëpp ñu doon ay murit saddiix waa kay maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di jël ngërëm beeg cant gi nag di ko teg ci loxo sëñ Modou Thiaré mu jottalil ma góor yàlla yi. histoire la boo xam ni si euh, buñ ko bëggee wax dana fi dañ fi yàgg lool wante dañuy wax li sabab mbir mi rek di wax ni sëñ bu màgg bi. Euh, jamono yi mi ñew fi euh, di set ci sunu maam Cheikh Mademba Diop waroon dem ci gor gu ñaan maam As Camara ci Ndar euh, Cheikh demba Diop mo ron denc doom bu ñoon code Camara te señ bi am yitte ci mam As Camara mu wara ñew ñëw jaar fi yàlla tegtal ko Cheikh demba Diop mu wara jaar fi wara and ak mom ci mam As Camara bi ñewé fi fii sunu maam sax xamuloon ko moy señ Touba. wante yàlla wan na ko ci baatin ba mu sëñ bi ñëwee ba mu ko gisee rek la xam ne ne ko kii la ko yàlla wanoon waaw ñu jóge fi dem ndar kii maam askamara li may wax ni histoire la boo xam si neexul expliqué dafa dafa gudd waaw dañ koy résumé rek te mu bi ñu jëmee ndar ci maam askamara mu ci la dindi kaamil bi jox ko maam suñ maam ma demba ni ko fasante naa ko yow kóllëre mooy kaamil bii lolou nak lu yag la ndax boba demagul sax ci geejgi wa waaw ñu jóge jóge loolu mu jëg ñu tok ak seen seen manam seen colère di continuer di yag yag bam mu jël gal gi gal gi ngeen gis yëkëti ko jox ko Cheikh ibrahim ko joxal ma ko Cheikh Mademba Diop ñu jël ko tek ko ci sahar indi ko fi ci ngumba jox ko bi mi gal gi ñëw fi ay teranga la ci seigne touba def ay warga ak suukar manam ay yeneen teranga yu bari def ko ci am na tamit yenn téere sëñ bi yoo xam ne si. sëñ bi ñu tukki euh, ci gaal gi lañ ko dénkaane la ko dénkaane woon bàyyi fi dénk woon kenn ba mu dem ba ñëw mu yónnee ni dañ jëli téere yi. Hmm. ñu jëli téere yi mu ni gaal gi ak kaamil nañ ko fi bàyyi fii ñu koy barkeeloo. Hmm. ma waral li di wax ni la te mu gaal gi ak téere bi. Hmm. kenn mësu ko wutal bis. kenn mësu ko wutal màggal. xam naa li ci soxla sii sax asta def. kenn mosu ko cee def mën naa ne waaw wante mbir sëñ Tuubaa moo demee ah, noonu kenn mënu ko nëbb te dafa am loo xam jagle la di mu ta koy bëgg am na ñu nekk ci dëkk bi te mënuñu ko kon tey ji yéen tey bu ñu yàlla dimbali tey ji ñu boole leen ak maas tamit mhm. ah tey ji ba lii tey ji am ah li xëy dafa naa ne jagle suñu borom la rek ah, ndax ah, fii dëkki sëriñ si fii ngeen di gis nii ci kanam ni jàkk ji sëñ Baara Moro di jàkk ji njabootam ñu nekk fii yow suñu baara ay seex ñoo xam seex ma jiwaala moo suñu baara ko seex ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne si ci dëkk bi ñu mm, mm, kon li leen yàlla defal fii ci bërëb bi ah, loolu eh, ndimbal suñu borom la ak ndimbal suñu tubaab daaw ñëwoon nañ fi kon ni leen daal mbir mi daal <laughs> waaw ci <laughs> sànq nag am na suñu jarbat mm. ñu àddala beng daal leeral na ci lu bari moo tax lu bari daal du ma ciy dugal. dëgg la dëgg la dëgg la